jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ne ko réel ngi noonu bi mooy troisième combat ne ko ak caatu saf caatu saf jàpp na ne ko waa combat bi nu mu demee nii waa lamb ji lewen daan na daan na ko sëñ daan na jaan na ko. Ama Baldé ngi noonu doomu Parcelles Assainies bi xale baa noonu. Ama ñoo ngi nuyu. waaw ah, ñoo fay ñoo fay. noo waajee tey. tey moom mooy lool bis bi maay borom daal. waaw sant nañ suñu borom. waaw lépp lépp gaay la quoi gaay yi taxaw jàppale ma mais guddi guddi ndam guddi guddi ndam. bis bi tay lu la jaral. bis bi lu ma jaral lu ne damaa bàyyi lu bëri damaa bàyyi lu bëri waaye ndax bis bi barke Serigne Saliou. gis mbooloo mi ngay indi fuñ la toppee. non mbooloo bi mbooloo bi waaw di mbabat la di mbabat la waaye dañ sas waaw fer na si man lu bëri il faut kon tey tey waaye guddi guddi waaye ndam rek guddi guddi ndam rek. looy def da ngay xeex ngay bëri. non lamb la rek lamb la rek lamb gaynde daaru gaynde daaru yaay bëre kan ama ama bu parcelle waaw bii mooy sa ñaata combat troisième combat nu sa lamb yi demee woon ndam rek incha allah xam nga ki ngay bëre non soxlawuma koo xam xam na la moom non peut-être indi lépp laa indi xeex wala indi lépp ayoo guy gi bu daan bëree nga xam ni gaynde la tey dem na guy gi kon xam nga ñuy daj ci yow li ñuy daj di la faral ngay bëre guy gee ngi guy gi daa tiit doo tiit guy gi. tey sa moo mooy bëre de guy gi bañ a nekk booy bi koy dal bu soobee yàlla ah. ak ni nga nekkee gaynde. waaw ba tey moom laa waaw ba moom laa di ñaan yàlla. booy day bëre bu mel yàlla yàlla may ndam. jaajëf guy gi. bëgg leen mbokk yi ñu leen nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci wasaare lamb seen mbégte rek mooy suñu bànneex arbitre bi sifflé na fëgal Pape Ndoye numéro 2. Pape Ndoye numéro 2 moo takk ngemb lu vert li ndeysaan guy gee ko indi écurie Mor la nekk ndeysaan muy bëreeg Feugeula Feugeula numéro 2 ak Pape Ndoye numéro 2 Feugeula sànni na léegi waaye dalut Feugeula Pape Ndoye numéro 2 hey Feugeula dagg na léewtoo bi Pape Ndoye koy xool ci bët. mbokk yi Feugeleu moo leen wan ginnaaw Pape Ndoye numéro 2 nag guy gi moo ko indi moo leen wan kanam Feugeleu Pape Ndoye numéro 2 sànni na Feugeleu sànniwaat na Pape koy xool rek Pape Ndoye Feugeleu ndeysaan Feugeleu Pape Ndoye numéro 2 Feugeleu ngi dox ci kaw Pape Ndoye ndànk dóor na waaye dalut Feugeula sànniwaat na Feugeula Pape Ndoye numéro 2 Feugeula dox na ci kawam ma ngay xeex Pape Ndoye génn na saako yi delloo na ko Pape Ndoye remise na ko Feugeula Pape Ndoye numéro 2 Feugeula Pape Ndoye numéro ndeysaan dóor na ko mbaa kaaw du am dóor na ko jéem na ko jàpp mu bañ génnewaat na ko saako yi. fëgal la numéro 2 da ko xaw a sàcc li muy bëri ni mooy yoon bu risqué rek bu dalee ci ko mën na am problème. jërëjëf Abdou noonu la bu rek mën na am yi fëgal la numéro 2 moo leen wan ginnaaw Pam Ndoye ngeen di lool fëgal la génnee na ko ñaari yoon ci géew gi génnee na ko saako yi ñaari yoon. ndeysaan fëgga la Pape Ndoye numéro 2 ñu ngay leetoo ndeysaan dóoraat na fëgga la dóoraat na fëgga la dóoraat na ndeysaan dóoraat na Pape Ndoye fëgga la Pape Ndoye taxawal jëlanteeg moom mbaa dóor mu daanu du am fëgga laa ngi koy dóor ndeysaan fëgga laa Feugeula nga koy dóor ndeysaan mu koy dóor gauche droite Feugeula nga dóor ndeysaan génnaat na saako yow mbaa du ko dóor mu daanu ndeysaan mbaa du ko dóor mu daanu. Pape Ndoye numéro 2 Feugeula jàpp na ci loxo bi. jël na ko da koo bëgg wër ndomba dina ko daan wër na ko ndomba dina ko daanam du ko daan yëkkati na ko daa daan na ko daanu ko am na def na quatre appuis quatre appuis am na am na. Feugeula daan na Pape Ndoye Feugeula daan Gouye Gui ngi noonu Feugeula daan na Pape Ndoye ndeysaan Gouye Gui nee na ko baax na baax na. waa maa lay fay sëñ bi. ñu gis nga indi sa poulain mu daanu loo yëg. waaw sant yàlla rek man mi problème damay daanu damay daan di daanu loolu adduna loolu la. adversaire ñëpp xam nañu waa moo ko ëpp doole te def na li a def. loolu laa bëggoon ñu taxaw waxtaan ci est-ce bi muy jël waa gis ngeen man waa ji maa ngi bi ma ñëwee ba gis ko sax dama dama ne mais comme que ba pare te man sama fit lañ yor am na yoo xam ne xam nga mais ñëpp amateurs ñëpp dañoo kontaan xam nañu booy wax dëgg mooy boole ñaari naataangoo. dëgg ñoom baax nag dañuy baax quoi day neexal làmb mais ñoom ñaar bi ñu taxee dañoo bëgg a bëre lamb dafa saturé ñi nekk ci géej gi ñi bëgg bëre bëgg a tere seen waaju day bëri ko tere rek da koy baare te ko tere doo am loo ko jox wala xam nga doo xam fu mu toll mën al gmr doo ko yëg da ngay bàyyi mu dem suwaam rek après li des moom dina la déglu man mii noon laa doon def man benn saison dama daan ñëw sëñ Modou Niang dimanche dimanche tëgg tëgg mais bi ma demee ba xam ne man mii am na lu ma bëgg dama ko ne arrête am fu ma tegu am fu ma jaar xale moo mel noonu mais boo legee dina jaarat si yoon bi quoi parce que loolu ma yàlla am Pape Ndoye tey nga indi sa poulain Pape Ndoye numéro 2 mu daan waaw li ma waxoon rek laa koy waxaat ma ne ko bëre naa keroog ñu daan ma te yaa ma doon defal ni ma àddun ni ma jour boobu mënoo woon a am ndam ma ne ko kon loolu nga ma waxoon rek laa lay delloowaat kiñ ko jox du naataangoom boo ko xoolee xam nga ne kee moo ko ëpp doole fuuf mais terewul ku ko xool tamit di nga xam ne booy bi jàmbaar la nee naa ko defar waatal rek nga ñëwaat xale bu ndaw nga waaw. Pape Ndoye sa combat yi ak Jackson ñu bari dañoo xalaatoon ni Pape Ndoye bu dee xeex la mun naa dóor Jackson mu daanu keroog ñu bari ci làmb dañoo am njaaxle ci pam Ndoye ni mu bëree keroog mun nga maa expliquer noo bëree keroog. ni ngeen ko gisee rek laa ko gisee xëy yàlla nangoon nangoon ci man loolu la yàlla dogal tamit mënuma si dara nangu naa ko accepté naa ko waaw. bi ngay jël Jackson xamoon nga ko. non man man Jackson xaw ma ko xaw ma ko woon. keroog bi daanoo loo waaw am naa lu ma metti am naa topp sama ginnaaw bari na xam nga te. waa mbër ñoo ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay fay ñi ngi lay fay moom nga programmé woon ci waaw lii du dara barki yu doon tamit lii nii c'est que dañoo ci écurie nekk ay ndaw ñu jàngal ñu boxe jàngal ñu xeex jàngal ñu bëre barki yu doon tamit lii du dara dañoo ñëw nii nii nii rek euh, occasion bi présenté wu ñu def ko. coup bi dal dafa dal ndax ku droite laa ko jox dama ko appelé gauche appelé ko droite joxuma joxuma cër nawloowu ma dañuy jaawale masse ak doole mu mu xool ma xeeb ma. gis na am na am na masse mais maa ko ëpp doole te bu ñu jàppante woon nga xam ne man maa ko ëpp doole bari kuy ñun tamit. mu ngeen ñëw programmé woon nga door mu daan. waaw man lépp laa indaale xam nga ñun bu ñu ñëw dañuy yor valise rek. lépp bu bëree woon bu bëree woon bu bëree woon lay gën a ñaaw bari kuy ñun tamit. mais damaa gis seen waa kër bi ñëpp kontaan. ay ndeysaan. Euh, Boy Niang numéro 2. gars yi mention spéciale à Boy Niang numéro 2 Maguette Seck barki Mouhamed dafa sonn yàlla na ko yàlla may fay xolam donc kii dafa dafa dafa dafa baax ak majji majji ah dañ cee sonn bari ko yunante bi dofu jaas mooy bëre suba yàlla na ko yàlla may ndam bu seddu guy mu caam mu caam sama doomu ndey maa ngi koy ko gërëm bari ko yunante bi sama xol moo sedd ba mënu maa wax sax jaajëf laaj na internet laaj na Djiné Mbaye arbitre bi sifflé na mbokk yi ak internet internet moo takk gemb lu weex li am lu xonq li Djine Mbaye ngeen jàkkaar lool noonu sëñ Basiru internet ak Djine Mbaye ñu ngi xoolante ci bët internet daw na jël tànk ba jël na tànk ba internet jël na tànk ba internet jël na tànk ba nu muy def dana rëcc walla déet internet jël na tànk ba jàpp na ci ginnaaw lu mu bëgg internet jël na tànk ba rëcc na internet jàpp na ko takk na ko internet takk na ko génn saako daan na ko. oh internet daan na ko jël bu rëy sëñ Bass internet daan na ko jël bu rëy daa jël tànk bi bàyyi ko jàpp ci ginnaaw wër ko domba jàppee ko wet takk ba ci kaw dóor ci suuf Baye Balla internet internet daan na ko internet bu rëy internet daan na ko jël bu rëy sëñ Bass borom mbég meeg taar mi ndeysaan mi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax futi tëgg journée bu mag dara jàll la ci boole la ci loo yëg sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax julli ci yenente bi sant samay ñaari waajur tey wax ni jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou tey waxaat jërëjëfati Serigne Saliou waaw tey biñ la tuddee bis bi loo yëg wax dëgg yàlla kontaan naa trop fekk naa waa Petersen bi yëpp jóg ah, Moussa Moussa bëgg njaw kodd mbër yi champion yi ñëpp nekk ci biir loo yëg lu ban affinité nga am ak ñoom. wax dëgg yàlla kontaan kontaan bu baax a baax a baax laa ci yëg barke Serigne Saliou Mbacke li ma ci gën a neex bi ma geesoo gis sama doomu nday góor waaw bokk na ci lu ma gën a marqué ci bis waaw geesu gis Moussa Diouf ah Abdou Seck sama xarit sama doomu nday ah Mor Diouf ak lu Petersen gépp barke Serigne Saliou Mbacke kontaan naa trop kontaan naa trop trop trop trop trop. tey wax ne kenn du Serigne Saliou lépp sëriñ Saliou waaw. jërëjëf Ngoba. jërëjëf. waaw ndeysaan mbër noo daane. waaye xanaa gën koo bëree gën koo ñor. booy si ginnaaw ki ma nekk ku ma fa nekk du ma ragal laa njaay ku ne si ginnaaw laa njaay doo dégg ragal barke Seydina Muhammad te laa ma ngi mu andi ma bakkan moo fi des mais kii du ma mos a daan billaay walaay taala internet noo bëree ba daan booy bi dama koo appel mu yaakaar ne may xeex xam naa dama koo appel mu yaakaar ne xeex ma ne jëfe tànk bi yaram bi la tax ma bàyyi ko jàpp si ndigli dem dem flexion mu essuwee ma raw ko jaxamal libéré ko wëj kooku mbokkam barke sëñ ba bi mooy sama deuxième combat ñaata victoire victoire foo jëm man ci gars damay dem ku mos a daan dëggul bu ngoy bu ba nga waaye sama grand frère lii sa victoire la yaak Modou Kane yéen a am lii. jaajëf yëngal ngel ngel boo yëmbal da koy yëngal sax boo yëngal noo préparé. waaw pare ak samay mbokk rek waa yëmbal waa yëmbal mbooloo bi xam nga rawatina nag yëpp. barke Seydina Mouhamed yéen a ma ñu ànd liggéey lu metti dem fu ne liggéey nax combat bi yaakaar naa te loolu de doonatul lu ñuy wax. lu ñuy jëf la léegi incha allah. xam nga li la mën a may ndam. waaw xam nañ ko. lan la liggéey nañ ko te incha allah buñ duggee ci géew bi dinañ ko wane. loo loo préparé. xeex wala dóor. làmb ji boo bëggee dégg-dégg làmb dóor la bëre dóor la ñu wax. ci fànn yëpp fu ma cuq rek pare naa pour fekk si ko fa incha allah. mobilisation bi rey na. waaw Modou Mbène Diop jëndal ma bologu ticket. waa diaspora bi jëndal ma bologu ticket. sama grand Moussa Guissé jàpp ci xama mairie Bara Gaye tamit jàpp ci rawatina nag waa yëmbal billaay waa yëmbal jàppale ma seetaanuñ ma barke alxuraan waa yëmbal aw ma seen fay. waaw ayca ñu dem. ayca ayca ayca. ana Fatim da baax. yaa ma bëgg ma bëgg. ana Fatim da continue dooleel mbër lii wolof nee na dooley jëm ndox waaye dooley mbëru làmb public bi yëmbal la ñu dëkk ñun sax yëmbal la dëkk yëmbal la ñu dëkk. yëmbal xol bu sedd ñi desee la na dara. man maa leen desel te incha allahu rabi fay ba wis leen. yëmbal. ak jéggi siraat. doomu Yoff moo leen féetee càmmoñ. Milki Zo moo leen féetee ndeyjoor. ndeysaan na nee na supporter doomu yoof léemu na doomu yoof jiital pànk càmmoñ Milkzo dox na ci koom jiital tànk càmmoñ cokkaas na jël na laa pataaka def ci ngam Milkzo dafa manduru ku sañ sëñ bas daa na la dox ci koom rek dóor xeex Milkzo mbaa doo am mbégteel Milkzo mu ngi dox ci kaw doomu yoof dóor na Milkzo dóoraat na doomu yoof jël na ko Milkzo sànni na ko hee Milkzo Milkzo mi dafa mel ni daa pare pour xeex ak sawaay dóor ko daan ko Milkzo dóoraan na dóor na jàpp na ko Milkzo doomu yoof arbitre bi nee na doomu yoof taxawal Milkzo doomu yoof dox na ci kawam doomu yoof daa mel ni ko amul garde fayu na doomu yoof fayu na fayuwaat na téere dagg na doomu yoof Milkzo mbokk yi Milkzo mooleen leen féete ndijoor doomu yoof moo leen féete sëñ Basiru laa ci àndal borom mbég meeg taar mi sëñ Bas Milki Zo doomu Yoff jàppante nañ ndengeñante nañ ndeysaan door na Petkin daanu kaaw na jàpp na hee doomu Yoff door door bu dal doomu Yoff door na ko bu dal hee Milki Zo doomu Yoff Milki Zo doomu yof déclenché na mbot doomu yof Milkzo doomu yof Milkzo joxabal na ko bañ na doomu yof Milkzo doomu yof ak Milkzo jàppante nañ ku ne di déglu sa morom doomu yof Milkzo ndeysaan ñaari xale yi jàppante nañ sëñ Bas nuyu naa la. Baay Jili fay naa la. sëñ Bas noo gisee lamb ji tey. waaw lamb ji neex rek. jàpp na ko jaxabal na doomu Yoff Milki Joo bañ na mbot na ko na wër na ndomba daan na waaw waaw doomu Yoff daan na Milki Joo hee ma ngay rëw daj rëw daj rëw daj waaw waaw Milki Joo doomu Yoff daan na la jël bu rëy ndeysaan Milkzo daa ñëw pour xeex doomu Yoff ñëw pour bëre moo taxit gàccey duma ndamal daar daan fañ na ko dëkk jël grand champion tey loo yëg Godaat borom fo fere ménage registre ah doomu parcelle bi yaa ma gën a xam waaw. waaw waa parcelle la sama yaram daa daw damay bëre sama rax amaa di bëre xam nga waaw mooy loolu daal billaahi saa yi mooy loolu. barke yéen ñu yëg lu garaaw garaaw garaaw. moment bi lépp jàmm. jël daan la yóbbu ba parcelle incha ñu rek seen ménage fa bëre jéggi siraat dama koy jéggi jàll. jéggi jàll waaw daa ma yëgul jool. jëli. ama bu parcelle. gaynde daaru. ama toj na nen waaye nen bi tojut. arbitre bi ngi wax ak ñoom. mu ngi leen di wax li règlement bi nangu ak li mu bañ Ama bu Parcelles moo leen féetee càmmoñ Gaynde Daaru moo leen féetee ndijoor arbitre bi wax na avertise avertissement Gaynde Daaru benn Ama arbitre bi laajte na ay jugeam ba xam pare nañ laaj na Gaynde Daaru laaj na Ama Ba arbitre bi sifflé na Ama bu Parcelles ak Gaynde Daaru ama seen càmmoñ xees mel ni ama balde rek lu waay di wuyoo da koy nduru ndeysaan gaynde daaru moo jàkkaarloog yéen gaynde daaru sànni na ama reculé na waaye gaynde daaru sànni na ama dóor gaynde daaru ama ama bu parcelle gaynde daaru dóor gaynde daaru sànni gaynde daaru dóoraat na ama jël gaynde daaru dox ci koom ama sànni na ko jàpp na ko ama jàpp na ko genn daaru docca na ko ci suuf genn daaru ama genn daaru ama jugaat nañ hee jugaat nañ genn daaru ama bu parcelle ndeysaan mbokk yi ama ndengeñ na ko genn daaru ama ama bu parcelle mbokk yi ñoom ñaar ñëpp ay ngemb Lagos lañu ngembo waaye ama moo gën a xees rek gaynde daaru moo gën a ñuul ndengeñante nañ ama doon na benn uppercut jàpp na ko takk na ko wala deet takkaat ko de ama jàpp na ama gaynde daaru ama gañ na teg na ko sees daan na ko oh! doomu parcelle bi daan na Bas ama bu parcelle a noonu xale baa ngi noonu ndeysaan oh avenir la ci lamb ku ko jàppale mu dem xale baa ngi noonu boo ko gisee ci bind ba ci taxawaay ba jëmmi Ama Baldé rek la lay jox señ Bas. loo wax ci waa mbërantaan la baa jiili parce que boo xoolee fi mu jógee ak fi mu terminé rek nga xam ne mbër la ndax dama koy faral di wax lu ci ëpp gis nga mbër bu ñu la defee benn action bu njëkk nga daanu ca doonoo mbër demal jàngiwaat. ndax mbër da ngaa war même ñu lay daan ñu tenter ay multi reprise def ay action defaat ay action ngay doog a daan waaye benn rek nga àgg teer loolu moom rafetlu wu ma ko te boo xoolee ama action bu njëkk biñ ko def normalement am na ci ñu doon doon jël la mais fexe na ba génn ca nga gis fa mu mujje mais aussi appliqué bëre bi imposé jàpp adversaire am ne ko lii laa lay def par force dama fay jaar ba far mujjee faa jaar tegal ko sees mu daanu donc avenir la ci làmb comme ni nga ko waxee bu continuer ci lancé bi mën naa am lu bëri ci làmb. amaa ngi noonu doomu parcelle bi parcelle xam naa ni boo demee unité 1 unité 2 unité 3 sëñ Bas kenn nelaw gonek parcelle gi ndeysaan may na am jom amaa loo bëre waaw gis nga la bari am la rek waaw làmb la rek waaw ba lu rëy nag li yëpp billaahi walaay taalaay mbër mu ndaw dafa metti dafa metti siiw ma maa ngi dugg si àll bi dafa ne combat bi bett ma nag combat bi combat bi 20 jours la taxaw 20 jours ma liggéey na combat bi nii soxla wu ma sax ñii booy tàngee laa soxla booy tàngee. jël adversaire bi xam nga ko. non xaw ma ko xaw maa ngi ñëw waaye mooy ndam noo ko daane non nu ma ko daane ba dama ko tëgal sées rek yaa ma gën a xam lamb la rek lamb la ñu bari dañoo séntu woon ci yow xeex bi nga ñëw téye xeex bi eh, bëre non ndax instant waaw mbooloo bi nekk sama ginnaaw moo tax nu maa xeex maa ngi sant waa Parcelles ñëpp nag maa ngi sant waa Parcelles ñëpp jaajëf nag Kalso jaaru si combat bu baax Bara Kandji gaa yi bëgg naa lu baax nag dinaa fa ñëw seet mi ngi ànd ak Cheikh Talla Diouf. ñoo ngi lay maa ngi lay fay baay. nga ñëw ci stade daa mel da ngaa indi sa plan. waaw dama indi suma rakk ah, pour mu ñëw xama rek pour yàlla may ko yàlla may ko ah. mel ni deret dafa fort. waaw deret dafa fort moom. nga indi sa rakk loo koy conseillé. waaw mais li koy conseillé mooy mu ñëw dal. li mu liggéey mu appliqué ko li nekk si moom mu appliqué ko rek mu jeex. yéen ñaar ku dàq bër <laughs> moom ku dàq xeex. moom Marley ba léegi bi saison bu ubbee ba léegi déggaguñu combat Marley foo ne. waa affaire yi taxawagul ah mais ñi ngi si li ñu war nag ñi ngi si entraînement yi di toog di xaar. promoteur yi ñu lay tontak. waa ñi ngi wax mais des fois dañuy wax combat yoo xam ne du la arrangé moo tax. faaw nga stand by rek. fan nga jëm carrément koo bëgg. waaw mais li ma bëgg mooy ki ma làmb booleel rek tamu jaaru ñu bëre mooy ñan waaw mais loolu promoteurs yi xam nañ ko dégg nga lim rek yéen xam ngeen promoteurs yi xam nañ ah. oui jaajëf maar la jaajëf loo yëg tey ndam ndam rek laa yëg bi mooy sa ñaata combat cinquième combat yeah. mais damaa gis nga mel ni ku ànd ak xadar mbooloo mu bari ci stade bi fu ñu la topp damaa nekk xale rek yee ma ne rek. maa ngi laaj maar la léegi yéen ñaar ma ko ku dàq bëre mu ne yow. non moom ku dàq xeex mu ne yow. non moom moom moom ci moom laay roy. maar la ku ko dàq bëre ndaan moom ci moom laay roy da lay nax rek moom dàq bëre ci lépp. jaajëf sa ak Tek Jël Jéegi Sira na benn avertissement Tek Jël jël na benn avertissement ñoom ñaar ku nekk am na benn ndeysaan laaj na Jéegi Sira nee na pare na laaj na Tek Jël. arbitre bi sifle na Tek Dieul Jéggi Siraat Tek Dieul moo leen féete Siraat moo ëpp taxawaay moo ëpp yaram moom Jéggi Siraat dox na ci kaw Tek Dieul Siraat dóor na Tek Dieul bañ na Tek xeex Tek Dieul jàpp na ko daan na ko oh! Oh! waay daan na ko jël bu rëy oh! jéegi siraat am nga lu la bett jéegi siraat am nga lu la bett yee jéegi siraat ñu ngi lay ni sëñ maa ngi lay fay. loo am ban mbégte am tey ci. am nañ contentement bu baax macha allah di rafetlu bis bi ak niñ ci ak niñ ko fekkee bu baax a baax macha allah. sa diggante ak di ko rafetlu rek sama xamel ak moom jaaree ci sama xarit Mourtala ma koy rafetlu bu baax a baax macha allah. mu nekk xale bu am jom bëgg lu muy def ban conseil nga am loo ko ciy doon. waa di koy ñaanal rek te wax dëgg yàlla yaakaar yi muy am ci nit ñi tamit yàlla bu yàlla tas yaakaar yooyu noonu macha allah. jërëjëf baax na jërëjëf. ma ne da koy réparé bayal bi ma ne ñun ñëpp suñu jàmm wàcc na Cheikh Talla Diouf déwén ak ay at yu bari yàlla lay dund ngay ànd ak màgg ñu lay tëggal ay yàlla sant yàlla. sant yàlla bu baax. ñi ma daan daan gënuma leen maa ngi sant yàlla bu baax. lii ci ngor la bokk. sa adversaire daan la nga dem yëkkati loxoom. maa maa bu baax. ngay wax sa moromu jeunesse yi nga xam ne dañ leen di daan ñu xat. maa ngi sant bu baax maa ngi sant yàlla bu baax. góorgóorlu. oh sëñ Ba sama yaram daw na. nga bëre Yankaw Junior nga bëre combat bu rëy xeex bëre daan loo yëg. waaw sant yàlla rek di wax jërëjëf Serigne Touba rek santaat bu baax a baax di nuyu waa Bentali Grand Dakar asalem biscuiterie di nuyu waa Bawol waa Touba combat bi ñëpp dañoo jóg jàppale ma di ma ñaanal dañuy def lu sant yàlla rek ay xale lañ dañoo ñaan yàlla jël drapeau roi des kon lii du lu rëy. lamb ji lu la jaraloon dafa mel ni bi nga dugg see gis nañ concentration. waaw lamb dafa nekk lamb ñu war a ñàkk rek moo tax ñu ñëw def tekk tee ñu ne ñu dalal mais yaa ngi ko xam ne ci lamb mooy loolu ñoo daloo dalal saa bu ñu yëngoo ñu ne ñu koo ñàkk. bi mooy sa ñaata combat. waaw man quatre victoire trois défaites waaw di sant yàlla nag waaye retour de Baye Fall bi te damañ ne bala ngay torojo faaw nga mu rojo bala ngay riigo faaw noo noo ko daane nu ngeen bëree waaw dañu bëree ñu dox léwtoo ma cookaas ko góos mu ñu léwtowaat mu mu gëdd ma dóor duraat ma esquivé ñëw déclenché dóor ko góos xale lañ nekk ci làmb ku ñu làmb boole dañuy bëree ñu benn adversaire géejawaay la ñu dugal rang muy gën a gaaw na mar la ñëw ma tas géejawaay na mar la ñëw ma tas géejawaay maa ngi biir géejawaay eh ñu nekkati fa barkaal macha allah bu ma la fekkee fi nga jox ma micro. waaw lay sama yow. wax dëgg daan jaar foo jaar fekk ma teg. man de dinaa la xamal ne. présentation. léegi nag mu ne. pare bi jaanam wàcc na. ànd na ak ay mbokkam. jël na alalam. luwe na ay kaar. toggulu na ay añ. def na lépp. ñu ngi nuyu ñu ngi ci journée Petit Production samedi 21 décembre 2019 Xeeru Ngor numéro 2 Boy ñu ngi ci digg géew bi mbokk yi ñu ngi ci digg géew bi arbitre bi ngi wax ñoom arbitre bi Matar Diouf la tudd ndeysaan mag la ci sëñ Basirou Diouf borom mbég mi taar mi Matar laaj na Mbéy Yëmbal nee na pare na am na lu xew nee na siège bi am na ku war a toog te toogul waaw kooku toog na arbitre bi laaj na Boy Yëmbal laaj na Xeeru Ngor arbitre bi sifflé na samedi 21 décembre 2019 stade Diom Iba Mar Diop journée Petit Production Boy Yëmbal jugee écurie Yëmbal ànd Xeeru Ngor numéro 2 ndaysaan ñu ngi ci digg géew bi xeeru ngor ngi léewo mu ngi léemu mooy xeeru ngor numéro waaye maa ragal boo yëmbal ci bëreem xeeru ngor yaa ngi bëre koo xamante ni ndaanaan la ci làmb mooy xeeru ngor numéro yaa ngi bëre koo xamante ni am nañ ci moom yaakaar am ñaar xeeru booy yëmbal yaa ngi bëre koo xamante ni ah, ngor am na ci moom yaakaar de ndax bu tuddee boppam xeeru ngor xeer la boo xamante ku mu dal sa kaw nga yàqu ku dal ci kawam yàqu arbitre bi sifflé na ñu leetoo ñoom ñaar ñu ngi xoolante ci bët booy yëmbal xeeru ngor booy yëmbal cokkaas na xeeru ngor a ngi koy déglu booy yëmbal xeeru ngor waaye xeeru ngor na bu dal boo yëmbal xeeru ngor ñu ci bët boo yëmbal daaw na jël ko boo yëmbal jël na ko xeeru ngor takk na ko dina ko daanam deet rocceeku na xeeru ngor boo yëmbal rocceeku nañ rocceeku nañ public bi yuuxu nañ ndeysaan xeeru ngor boo yëmbal ndeysaan ña ngay leetoo nañ ku ne yem na sa morom sëñ Bas lu leer laa lay wax ndeysaan ñoom ñaari mbëri dóor na yëmbal yëmbal dóor na bu dal léegi yëmbal xeeru ngor xeeru ngor moo leen féetee càmmoñ moo leen féetee ndeyjoor yëmbal moo leen féete càmmoñ ndeysaan ñu ngi ci combat bi ba tey boo yëmbal xeeru ngor ñu ngi xoolante ci bët boo yëmbal dafa mel ne xeex bi la gën a bëgg yëmbal xeer ngor ñu ngi xoolante ci bët ñoom ñaar ñaari xale lañ macha allah ñaar ñu am mbooloo lañ kii bu jugee ngor lu bari mbooloo bu bari lay jële ngor ndeysaan wakaam yoof yëmbal bu déparé pikin jóg yëmbal jóg caarey jóg ndeysaan moom boo yëmbal tey leetoo ba tey boo yëmbal ndeysaan daw na jëli ko daw na jëli ko Boy Yeumbeul arrière na ci digg géew bi Boy Yeumbeul Xeeru Ngor dafa mel ni xeex la bëgg arbitre bi nee na ñu daje saan arbitre bi nee na daje leen arbitre moom xamul coup bu dal xamul coup bu dalut moom li mu bëgg mooy ngeen bëre dalante arbitre joxe victoire ku ne ñibbi sa kër macha allah lamba ngi noonu ndeysaan sëñ Bas promoteur bu mag di lig ni ko laay organiser journée bu mag nekk ci ay jafe-jafe nekk ci loxoy yoon wasaare làmb gépp di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom bàyyilu président de la république ñu ngi lay ñaan lig ni ko laay doomi réew mi la bu dee mun nga cee dugal sa loxo dugal ci sa loxo ndax mu ngi jàppale ñu bari ci làmb mu ngi jàppale jeunesse bi sëñ Bass looy wax ci loolu. waaw Baye Djily li ko masawu ak lu làmb yëpp rek tiis la ñu koy ñaanal yal na ko suñu borom taxawu képp koo xam ne nii boo ci waxee mën ci dara rek ñu ngi ñaan nga wax ci ndax ni nga ko waxee noonu la demee bokk na ci làmb bokk na ci réew mi te boo xoolee moom rek facteur de développement la ndax bëri na ñu jaari si moom ami million tey bari na ay gone yu jaari ci moom am dooni champion tey. bëri na ñu nekk ci structure am moom moo leen embauché créé ay emploi donc kooku mën naa ne ku am njariñ la ci réew mi te ñi am njariñ yëpp buñ mujjee ci kaso yi bàyyi ji réew mi dana sooxe kon dañ koy ñaanal rek yal na ko suñu borom dellu siwaat ci ñun te képp ku ci mën a wax ba mu dellu siwaat ne yal nañ ci wax jërëjëf yal nañ ci wax xeex ba boo yëmbal daw na jël ko sëñ Bas boo yëmbal song na ko jàpp na ko caxabal nañ ko daan na wala déet lamb ku daan ay sañ bas ku daan ku daan boo yëmbal daan na wala déet xeer ngor daan na ku daan arbitre la ñuy déglu arbitre la ñuy déglu nee na génn leen neena na génn leen nee na leen xeer ngor numéro 2 hey sëñ bas mbaa amul sëñ bas yow laa ragal yaay faar Baye ji lii mooy lii mooy prudence parce que ñetti juge ñaari juge ñoo fi ne ak arbitre central bi muy ñett ñoo xam ne seen bët yëpp mu nga ca suuf ba xam na suite am na wala amut bu concertation amee ba ñu ne nañ sifflé waat rek man damay jàpp ne loolu mooy yoon. parce que yëmbal jëli na. mais boo yëmbal lañ bëgg. na ku yëmbal jël na ku mot nañ ko yëmbal bañ na yëmbal bañ na mbaa ko daan yëmbal bañ na daan na ko. Boy Yeumbeul daan na ko Boy Yeumbeul daan na Xeeru Ngor Boy daan na Xeeru ma ngay jooy sëñ Bas xolal oh wane na jom bakkan bi toj na jooy na ndaysaan Yeumbeul a ngoog ndaysaan Boy Yeumbeul mabar laa ko tuddee borom jom la ndaysaan baal ma baal si mu dëkk bi daf ma jël ma takk ko doo ko caxawal mu teg mu tëdd billaahi dafa tëdd dama koy def dama koy def loo wax li nga bëre dama ko def si yoon bëri naa li ma war a def naa li ma a def xale bu ndaw laa am sama combat préparé ko ay weer an dem fu ne du ma ñëw ñu ma yu sew wax na ko damaa def recours damaa ma war si làmb yëpp maa feesal stade bi maa tuus tuus bi maa bëree daan daan bi ñu bëgg ma ko xañ ma ko nangu sit bu njëkk bi ñëpp gis nañ ko ko comme mi yob gis nga sit bi comme mi yob sax gis nga sit ngeen jëf mbokk yi loolu lañ leen indiloon tey ci journée Petit Production mu dox ci ñaari ndaanaan Xeeru Ngor numéro 2 ak boo Yeumbeul boo Yeumbeul daan na Xeeru Ngor sëñ Bas ki nga xamante ne mooy Xeeru Ngor numéro 2 nee na daanuwul arbitre bi c'est le maître du terrain arbitre bi nee na kii di Boy Yeumbeul daan na ko jël bu rey bu amul benn werante mu ngi félicité bu baax a baax a baax. boo yëmbal di félicité waa yëmbal yëpp di encouragé xeeru ngor di ko wax xale nga làmba ngi sa kanam mbokk yi ñu leen di tàggu tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci wasaare lamb jaa ngeen jëf